liñ ñuy jàngal ñoom ca lañu ne ba ñëpp xam leen ci ràññi leen ci ca bu yàgg yàgg boo xam ne eh, la muy wone rek mooy yitte win yitte woo njàngaleem sëriñ bi xam ko sëriñ bi loolu la digle woon kon loolu lu am solo la maa gis maam na borom daaru sëñ Touba mas na koy bind bataaxal boo xam ne bokk na ci dane ko na way xam yi góor góor lu ci jëfe liñ xam way te jàngal way réer yi way réer yi nañ dem laaji way xam yi te jàng ca ñoom ngir jëmm yàlla daana dëgg nag mooy nekk dëgg te mooy kawe waxtu wu ne waaye ak neen nag moom waxtu wu ne day suufe kon loolu wane na lam ca lam ca digle ci nit ki bëgg ko ak man koo def ki bëgg egg ca suñ boroom foofu la mën a jaare ku bëgg a jëf ci foofu la mën a jaare kon lii lépp day feeñ ci xasaa yi di ndax ki nga xam ne bu ñu waxee mbindum sëñ bi tey lii ñu fi nettali lépp ci programme bi sëñ bi tëral ci ki wut xam-xam ak kiy jàngale ak jëmmi doomu adama bi lan moo ko war ak nan la war a doxe loolu ni mu bindee am daax yi binde ko salawaat yi noonu la bindewaat mbind yoo xam ne it ki bëgg a jëfandiku te damay gis ne sax ki dégg lii moom ci lay gën a yombe mu xam lee lan lay jëriñ ndax ndab li bu bu setul rek defe naa def ci dara dana jafe bu boobaa lii sëñ bi saa yu sëñ bi yëkkee te kàddoom woote rek dañuy daal di mën a dégg woote sëñ bi xam ko bu baax a baax ndax sëriñ bi woote bi mu woote kenn ku ne jaayante jëf xër am xër gi am na yitte ji am na. xam ngi rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy des léeg-léeg waaye pas-pas moom am na fi yitte am na fi bëgg am na fi loola nag bu ko ak xam laltaayee ci lay jage ndax bu boobaa danañ fekk loo xam ne boo ko defee ci xér def ko ci bëgg bu ca xam jiitu woon da nga ko defee da nga ko defee neneen wala nga defee ko feneen foo xam ne njariñ ya cay gën a juddoo yow lay gën a jariñ jariñ ñeneen du doon njariñ loo xam ne day doon euh, li ñu tudde intérêt personnel waaye day daal di nekk léegi intérêt général mm-hmm. loolu bokk na ci tey bari na li nga doon lim nii am na ñoo xam ne bi ñu déggee wax ji rek xam nañ ne ñoom penc yéen féete dundoo ko ñoom la war mm-hmm. nga xam ne dañuy wax ne ñoom it fañ féete ndax tudd nga saam léegi waaye am na fu ñu ci wax saamu sëñ Baara Xureja ñoom ci bëccëg rek wax nañ ne ñoom it ña ngay taxawal ca fañ toll ak nañ ko mane ci dundale ko foofa ngir ndigalu sëñ bi ni ko santaane defe ko foofa loolu it bari na ñoo xam ne it ñu ngi wax ne ndax ñoom it dañuy am ndigalul ca seeni kër ñu def ci ay xéewal buñ ca sottee manes na koo jox ñeen féeteel wala lu muy demee loolu it noonu mu amee ñiy ñëw war a si ndax day woote fi tey kenn sëñut ne dañoo woo ab ab maçon man du ma ndax damay xam du ma am maçon waaye fi ne li problème bi mooy boo ne dañoo woo jànkati xasida benn murit bu doon tub jànkati xasida mu amut kooko ngi may wax mu amut te am na si ñooñ moom maa ngi ñoo ma yem waaw li ma wax léegi léegi nag ngir nit ki xam li sëñ bi bëgg ak li sëñ bi jublu lu waaye di def lu ne na nga ca jiital xam jiital ca ay teggin ndax sëñ bay jaxat dafa wax ne mbooleem lee fi jóg di yaroo ko gën gën koo rafet moo jar dox junni bi at di wut sëriñ bi la ko jox nga xam ne kon lu waay di def na ko def ci yar def ko ci teggin ndax barke bu ko nit dee sàkku bu fekkoon ne ab néeg la teggin teggin mooy bunt ba nit di jaare mm-hmm. te barke nag ñett la sëñ Tuubaa moo moo ko waxoon Cheikh Amadou Lamine Bara Dieng mm-hmm. na ko barke ñett la bi nga sàcc bi nga liggéey bi nga àbb mm-hmm. bi nga sàcc des na la dab duma la nangu ko bi nga àbb bu borom soxlaa nga ñàkk bi nga liggéey yàgg ngi moom bàjjal kon bi nga jëf ba am ca ngërëm moo lay jariñ mhm. mooy fexe ba am laltaay ju sel ju yéene ju sell mhm. am na kook bu mu jàpp ne ndax léegi maa ngi dégg euh, sëñ kebe di ko wax ne soxna si wàññi luy paasaka dawlu ndànk mën mhm. a ko kooku nee ngi woote ak magal moom <laughs> xaw lu mën a xewaaye moom ku jublu ñu wàññi moom ay paas moom moom moom moom boole na ñay durus ak ñi du durus ak ñay seetaan ak ñay seet ñëpp a waaj a xam naa mat naa tegaat ci ak leeral mu waaw waaw waaw ña nga xam ne bokkuñu ci kuréel ba te bu ñu demee di ñu durus ñooñu boo bu bu bu kuréelu xasida ba teewee teewaale na leen ndax ndax digal li màggal gi àgg na ci tey man mii leer na ma ni su ma fa demoon li sëñ Ibra Gueye du ma ko mën lii sang yu baax yi doon jàng du ma ko mën amaana sax ma doon koo xam ne toogoon fa ma ne jël sama jukki màggalee ko ndigalal sëñ bi ànd ci ndigal day mel ni sax mooy ëpp yool ndax ñu ne bitim réew paasu ñu ngir ñëw ña nekk fa gën a sori coono yooyu tegawuñ ko sëñ bi ñiy jàng te seen njàng wér te sell ñoom la wax mm-hmm. ñooñu nag yaakaar naa ni tey ñoom la bëgg ñu fees jumaa ji mm-hmm. Mm-hmm. kon ñoom ñooy priorité mm-hmm. maanaam bu amoon ñu ñëw di wisit bu ñu seetee ñooñu la ñuy bàyyi ñu dugg ba noppi ba place yi des sama classe gi soog a ñëw <laughs> loolu kon ñëpp dégg nañ noonu ko Cheikh Mouhamed Lamine waxee la ca des kon ku mënta ñëw ñii di jëf nañuy jëfee mën ngaa bokk ca loola sëñ bi nag mu addiyee ni muy ñëwee fi moom ca yéene ja lay laltaayu boo yeewoon fukki gëleem wala junni nag ca penc ma ki am benn dërëma mu toll ci moom te wóor ko ne dërëm bi képp la am te yéeneem sell mu joxe ko ca pay yoolu pay ga moom yéen a koy yéen a bokk yéen a koy tolloo ndax na ko ëppalee ba mu la wóoree ne joxe nga téeméeri nag am na ko joxe téeméeri nag ba mën a joxewaat junniy gëleem mm-hmm. kon tànn ci alalam téeméeri nag joxe kii nag benn fukki dërëm dong la am mu joxe kon yéen a joojee la ca la ca la ca laltaay la ma ca waxoon it maa ngi koy fàttaliwaat mooy sëriñ bi bu wootee dafa laaj teggin mm-hmm. ndax bis bii da nga ci gis kilifa gu génne këram bu du loon ndigalul sëñ bii mën naa bañ a génn ñëw barkeelu si ci ndigal li kooka ndax ne ca wetam di yuuxu ak ne ca wetam di wut koy lëngool di foto ak ne ca wetam di wut foo sànni vocal loolu defe naa du ca du ca du ca ay teggin ku ñëw ku nekk xam ni nga ñëwee ñi war a jàng toog di jàng ñi war a joxe seeni xéewal ci ñoom di ko joxe ci ñoom te kenn ku nekk yéene wala yéene ju sel rek fa seene jariñ ci bis bi fa seene cee jariñe loolu daal noo koy nag ci léggéey bii niñ koy nosee ndax bis ba it lañ ci jublu mooy ku mel ni sëñ Mbàkke Abdourahmane mii ku mel ni sëñ Fallou bu soixante mille bu ñëpp bu ñee nekkee sëñ Ibra Gueye bu nekkee fee di yëkkati sëñ Xaadim Gueye ñoom nekk fee di yëkkati waa kuréel yii ne fee di yëkkati danañ durus ni ñëpp de waaye nag ñoom ñii war nañoo bu ñu yeggee ca bis ba war nañoo gën a jàngalaat nit ñi liñ doon daje lum doon nga xam ne jataay yu am solo lañ fa bëgg a amal yoo xam ne ñoom ñii di suñ kilifa yi ñooy ñëw àndaat kook noonu ndax ka toog ca réew wala ka toog ca dëkkam dégg ndigalu sëñ bi tax mu ne kon kat naa yónnee te bañ a dem toog lu may jariñoo ca bis ba defe naa jëm yiit ñoom it ñoo mën a jox ñooña leneen ginnaaw nu barkeeloo njàng mi lu ñuy xamee lañ woote lam doon kon noo ngi noo ngi noo leen koy gën di fàttali di gën di santit baax a baax ci jataay bi ndax nit bu nekkee ci dara ka cay kilifaam bu ko bokkee moom xolam dañ sedd mm-hmm. loolu nag eh, njàngale mi rafet na dégg na sëñ eh, Fallou maa ngi koy fàttaliku léegi eh, ci nii muy indee ay waxtaan ñu di ko xalaat dama ñëw di nuyu sëñ Mbacke mii léegi ma ne ko dama am kilifa gu mànd gu baax goo xam ne damay waxtaan ak moom mu ne ma waxuma la lu ne sëñ Mbacke ko wax maanaam mu ne waaye loo dégg mu wax ko foo dem bu la neexee nettali ma ne ko loolu jafe na sëñ Sam mi sëñ Fallou mi dafa am bis ñuy def ab émission boo xam ne moom moo indi Maodo waxam ci tudd al islah al ijtimaai def réforme sociale boo xam ne booba sëriñ bi ni mu ñëwee ba mu koy tekki dañu k gàttalal booy déglu borom xam-xam da lay yombalal lu bari mm-hmm. moo tax dégg am mm-hmm. ma ne man bu ma ko bëggee dégg mun a jekkal aw toogin rek defaru man maanaam soppiw toogin nga xam ne wan na la bu lii ñëwoon def nii li gën a mat gën a rafet looloy ñëw loolu mooy doon njariñul jataay yii nu séq ak ñoom ndax fi àdduna bi toll tey xam nga bi mu waxee léegi sama xel dem ci naa il kawaaxi ba gis ngeen fi mu toll nii actualité bi xew ci réew mi defe naa am na ñooñ ñooñu ñu leen di soriloo yóbbe nañ leen yàq seenum njàng yàq njàngum ñan koy ñan koy defal ndax jaral na leen bëgg a soppi seen i jëmm ci seen i béréb wutu kon li sëñ bi loon jàngale waxtu wane ñu ngi ci ñu ngi ci ñu teg bët. Mhm. kon faw nu gën a yitteel faw ñu gën a jox yitte xam-xam jox yitte ñooñ xam-xam. Mhm. te kat damay wax ne lu la rëcc ba boo déggee sëñ Mbacke Abdourahmane wax wala sëñ Sam sëñ Fallou Bousso wax nga ne cey man de rëccu naa sama jamono lu ma teewoon a jàng. Mhm. te yore doom te kenn jëngul. da ngay tey teylu. waaw ah, ci <laughs> boo yoree lu ne ah. gàññi sa poos it. ba noppi naan xam-xam da koy dëgg. xoolal ñii liñ jàngaleet ak fi mu mel te yëguloo daara joo defar yëguloo daara joo def sa alal yëguloo lenn luy waral xam-xam jëm ca kanam mhm. yow day mel ni kon li nga riig ci sëb dënn ak soboote nga ci jubluwaay nekkul lu wér ci yow mhm. defe naa daal pexe amul mhm. mooy ni ko tey université bee defe naa kenn du war a tàmbali jàng ci ibtidaiyya di di di dem ca université ba xanaa kon bu nu yaatalee jàngu yi ba nga xam ne tey jii ku ku mate fa nga war a mate rek wuti fa loola nag fee bu ko sëñ bi defee kon ko tolloog daara ko tolloog jànguwaay ak ko tolloog defari béréb loola war na la te ku ne xam na ne am na te manees na ko am na ci ñooñ mën naa am ñàkk xam mooy li ma wax léegi bëgg am na xir am na waaye xamuñu am nañu fi ne ku leen wax ñu jëf mhm. fi ne léegi la gis koo xam da nangam ne ko sëñ bi bëggee fi ne am na béréb yu ne ci Tuubaa yoo xam ne am na ñu daan jël seen i alal di ko yóbbu ci yeneen i yoo xam ne nañ ko fay defee mhm. am na béréb bu mu gën a yelle ci biir Touba ngir ña mhm. lañ fa saxal di jëf lépp ndigalu sëñ bi waaye am na ku ñëw koo xam dañ koy influencé fa muy jàddal yëfam ak fa mu koy def bokkul ak waaye bu ko leeree rek mhm. foofa lay daal di wuti directement te ñooña fa mboolem lu ñu mën a dund ci xat-xat ndigalul sëñ ba leen fa bàyyi dana leen doy ba ñu jàmbat ci na war nañoo am nangam mënuñoo génn di wax nangam ak nangam mhm. kon defe naa bu ñu gënee yaatal yëf yi rek ñëpp danañ ko mën a jariñoo ñëpp danañ ko mën a bokk noo ngi leen di jégalu bu baax di di di woo di wax ne rek ñi war a jàng nañu ñëw mhm. mooy ñuy durus ak kuréel yi te kenn ku nekk béréb bañ la yóbbu nga nekk fa mhm. ku accident te doon jàngkat yi jàng ak duruskat yi it li ma doon wax maa ngi leen koy waxaat ku toll ni Serigne Touba comme tànnal bis tànnal lay bernde defe naa boo xësee agsi ca béréb ba bu dul koy jokkool te ak seegut te war koo woo mu ñëw wala mu war woo nga wax ko fi nga nekk defe naa ne fa wuyu téléphone it wóoratul war na koo tegaat ci ay sàmm ay teggin ak dal ba image bi ko gis ki war a takk masque yin war a takkit sel yi war a laaj laal nu def ko ndax Cheikh Mamadou Mountakha daf na woonu yoon loolu it buñ ko defut la muy jur mooy Touba da gis ñoo xam ne ay sobootekat lañ mhm. mooy Touba ngi nii fees dell te ku nu masque mhm. sëñ Touba fi nekk waaw nun faalewul nangam yóbbee na lu kenn mën su lijjanti mhm. te yow mi koy wax mënoo faj sa bopp mënoo faj keneen tey doon responsable bi nga xam ne yow yëf yi sa kaw la tege si takkal damay yox ne sëñ Muntaxa bu ne woon takk ay mbuus wala ay saaku xotti saako yi la war a jël roof ko suñu bopp bu nu ko digaloon ginnaaw pas-pasu wuy si bi mën naa am jëfee li bëgg ak ni ko bëggee kenn ku ne bañ caa natt fa nga toll ak na ko doone waaye ni ko sëñ bi bëggee rek mm. mooy mbir ma mm. kon maa ngi jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah